darsu yi def def fii ci darul maarif waaye ci pàcc bi nga xam ne nag moo nekk ci eh, xidma di ko saytu ñu ànd koog daayira muxadamatul xidma ak idaara bu daaril maarif di ñaan suñu kilifa yi sëriñ alxaaj mbàkki jaxate eh, suñ borom yàggal ko fi ci wéral ko sëriñ xaafi bu sayit suñ borom yàggal ko fi wéral ko njiitul daayira bi ak eh, ñi ñi ñi àndal liggéey bi sëñ Abdou Xaadir bu so ak ñi mbokk liggéey bi tey nag ñi kon ñi ngi woon ci njàpp moom lañ doon doog a jeexal war a wéyal nag ci eh, waxiinu cosaanal bi ci sangu farat ñu war a tàmbalee fii mu ne aw annahu wala moom ixtasala sangu na namu naa sangu minal janaabati ci janaba wa axsana mu rafetal at toxora wa zaaka loolu an xasal mooy mu raxas yadayhi ñaari loxom jiiman ñetti yoon maa ko ayni ba ci ñaari tukki jaraya isan boobee waxasala alladi mu raxas la nga xam ne asaaba jotoon na ko min aza ci sobe waxasala mu raxas it almaxraja génnukaayu sobe ya naaw yéen mbir moom muy aji yéene la daa zakkari yi fas ba muy raxas sàkkaraam wala ba muy raxas far jiha pm mu yéene ca fardan farata ba nga xam ne ba daa feeñ na su ma tawadda topp mu jàpp nag marratan benn benn waaw mu tàmbalee ko daan ne eh, wala ki nga xam ne eh, kooku mu doon melal ci Eh, kii def dara ci warteef yi ca xamu ko mu ne wala mu mel ne ku bëggoon a sangu farata daal ne sangu farata nag na gën a rafet ca nañ koy defee mooy nii mu koy bëgg a jàngalee mooy day raxas ñaari loxoom ba ci ay takkukaayu jaraam bu dee jigéen la ma des naa wax takkukaayu montre rek mooy yii bu ko def raxasee ñetti yoon eh, ñaari loxom ba foofu ñetti yoon daal di xobbiku xobbiku mooy mu raxas. Euh, fi nga xam ne soobee baaxoo na fa taq li tàmbalee jumbu xam ba ci ay bëtéo moom ba ci ay wàcc ay tànkam diggante boobu euh, wala foo xam ne gis na ne soobee ma nga fa moom foofu mënut a ñàkk mooy mu xob bi ko raxas lépp loo xam ne jotoon na ko ci soobee bi muy raxas zakaraam euh, bu tuddoon payam du baamtu sakara ndax bu dee sakara moom dañ koo xamee góor moo tax mu waa di baamtuwaat ba tey daan ak awra bu dee soxna la payam ba mu koy raxas nag foofa mooy béréb ba mu war a yéenee yéene xeetu sangu farata bi nga xam ne war na koo def intention bi muy am xam na ko mooy fekkee dafay sangu farata janaaba wala day fart day sangu farata ajjuma euh, wala wala wala foofu lay yéenee bu yéenee noonu ba noppi nag mu daal di tàmbalee jàpp comme ni ñuy jàppoo waaye cër yëpp bu ci nekk mu def ko benn yoon noonu la koy jàppee mu jàppee nag ba agsi ci karaw gi mu ne waxal laa mu xallil saaraxoo karawam nga jamiaa boole seen mu bali laa di aji tooyal ko waaw bu agsee ci kawaram gi nag kawar gi yëpp rek mu tooyal ko tooy xëpp maanaam kawar gi kawar gi yëpp tooy buy raxas bopp bi nag la wax ne mubtadi an muy aji tàmbali fii daaka ci loolu min mu àqari jum jamatin ca lañ mujjee ca kaangu bopp ba kaangu bopp ba nga xam ne loxoo ñel ko li daf darar ngi jañ lor mu raxas rësan loxoo bopp boppam rësan bopp ba nga xam ne loxoo ñel ko maanaam boppam ba mu raxas ko bi salaasi xara bi ci ñetti tànk min baxdi ma ginnaaw ba nga xam ne xat xal laa xalil na su ma jaxal topp mu def almaa ndox ma fii raxaati lim naa ci tonk ndeyjoor ba wa amaala mu jàngal sa bopp ba wa xasal mu raxas usnahu lim naa nopp ndeyjoor ba wa yusraahu topp nopp càmmoñ ba kadaaka naka noonu wa xasala mu raxas alxunuqa dox ga xaslan ak raxasit baxda zaak ginnaaw loolu wasiqahul ayman aymana topp wetu ndeyjoor ba li rukkubati mu raxas ko ba ci bëti wam ba suma ay saroxoo toppitu càmmoñ ba kazaalika nii yaxum euh, bi mut laxin ci ndox mu laab ndox lax mooy ndox ndox moo xam ne baatu ndox rek lañ cey boyal doone ndox ak ndoxum nangam ndox ndoxum ndox rek waaw yaxum yaxum dana ko matale waxasala mu raxas rijilahul yum naa tànkum day joor ba yelal kax bi ba ca dojar ya Eh, wa baxdawoo ginnaaw ba it al yusra tànku càmmoñ ba kadaaki nekk nii mu raxasal ko ca dojare eh, wa kamala mu mat mu mottali maanaam mu àggalee sangu farata ba eh, bi xas li batnihi ci raxas biiram wa xas li sadri ak raxas dëndam min ba'di ma qaddama ginnaaw ba nga xam ne nag fekkoon na mu jiita jiital na xas da duhri raxas ginnaawam ah, mu ne Euh, bu ko defee noonu mooy ni mu toftalee sangu farata ci niñ koy jàngi ci téere bi nga xam ne ci téere yi njëkk la ci koy jàngi muy nan mu kon bu fekkee dafa nam sangu farata day euh, yéene maanaam day day day wut ndox mu laab euh, yóbbu ko ci béréb bu laab bu fekkoon ne béréb yañ miinoon ci jamono jooja bu dee léegi nag na gën a rafet ci nañ koy raxase mën naa am duy na ab ab duyukaayu ndoxam wala tijji na ab sansam wala tijji na ab rabinaam daal la muy njëkk def mooy day raxas ñetti loxoom ba ci ay tukku jaraam ba ci ba ci ay takkukaayu jaraam ñetti yoon wala takkukaayu montaram ñetti yoon niñ ko mere la muy fii bu ko raxasee ñetti yoon ba noppi nag mu ne mu daal di xobbiku buy xobbiku mooy raxas li fii soobee baaxoo taq ci moom fii gën a lëng ne fa la soobee taq moom eh, tàmbale jumbu xam wàcc ba weesu euh, awra ju ji diggante boobu buy raxas jë bu dee góor la buy raxas awraam wala budee dee soxna la buy raxas awraam jëmmi awra ja bu koy raxas eh, falay falay yéenee nag bu yéenee daal di jàpp comme ni ñuy jàpp waaye cër yëpp mu def ko bu nekk benn yoon bu ko defee benn yoon ba agsi ci bopp bi mu fexe tooyal bopp bi lépp it mu fexe eh, too tooyal bopp bi lépp mu eh, bu ko defee ndax loolu mm, mën naa am ca dalil ba mu mu ñu gën ko dëgëral mooy fexe ba karaw gi lépp daal di tooy bu tooyee ci ñetti yoon yi baax na bu tooyee it na fexe ba tooyal karaw gi yëpp ndax tooyal gi dafa mel ne ci la bokk. Euh, bu paree nag buy raxas bopp bi it neen na koy tàmbalee ci kaagu bopp bi na koy tàmbalee ci ginnaaw di raxas muy wàcc ngir jañ mbooleem lor yoo xam ne mënoon nekk ci moom moo xam euh, ci yi aju ci adilla yi lay ci ci ay wuute dañuy bañ mu gudd ci kii doog a tàmbalee jàng. Eh, waaye ci yi nga xam ne médecine mi ngi ko ci eh, recommandé ngir mu mu fegal ko yeneen feebar yi nga xam ne bu fekkee ne ay cër day tijjee ko ci moom wala ay bën-bëni eh, kawaram day tijjee ko ci moom mën ko fegal lu mel ne lor ak yu bu noppee nag fekk na boobu mooy bi mu raxasee bopp bi ñetti yoon ba pare mu daal di jàng jàngal nopp bi raxas nopp ndeyjoor bi bu ko raxasee ca kaw ndax ndox mi ndox mi day dugg ko nopp ndeyjoor bi da koy jàngal mu wut wuti ci wetu ndeyjooram mooy tax bu ko raxasee ndox mi dugg ci biir nopp bi bu defee noppee def ko bu càmmoñ bi bu noppee daal di enchaîner noonu li ci toppaat toujours da ngay xam ne logique gu sangu farata bi toujours mooy day tàmbalee ci day jiital li kaw comme min haysul adilla di ci teg li gën a féete suuf di jiital waxtu wu nekk ndeyjoor di ci teg càmmoñ loolu mooy adilla yi addis yi jóge ci yaay Maymuna ak yi jóge ci yaay Aïsa Eh, bu ko defee bu bu noppee daal di raxas kon dox gi xam nga ne moo gën a féete kaw raxas wetuk ndeyjoor gi li soon ci péréb bi jëlaale wet geeg yëpp ak tànk bi ba ci bëti om defaat ko bu càmmoñ bi naka noonu raxas tànk bi tàmbalee ci bëti om bi ba ca eh, foofu bu soree dal wu ñuy takk foofu mu yem ci dojar yi defaat ko bu càmmoñ bi daal di raxas ginnaawam eh, raxas biiram raxas dëndam daal di àggalee li des ci njàpp mi sangu farata ma daal di daal di mat eh, léegi nag mu daal wax ne bu fekk bu fekkoon ne nag dafa sangoo nii ba pare wala sa yadri yadri te mi ngi xam min jamihi saakaay ci mboolem loolu mu def faridatan farata la aw sunnatan wala sunna hunaaka foofee fay na xoo na ko moom kat aadatuhu tojam des na mislal janaabati kem janaaba xaleehi di ko war fadri yaa xamal wax yow mii di jàng na nga bàyyi loolu mu wax a baax Euh, kon loolu mën naa nekk benn benn taxawaay euh, ci benn leçon boobu ñu jàll ci beneen leçon bi ci des bi ci toppaat mu wax nag daan ne kon ginnaaw boobu mu jàngalee sangu farata so boo fàttali ko yoon wala jàngaloon na jàng jàngale woon na jàpp bu fekkee da ko defar ci ni gën jaa rafet ci niñ ko war a defee muy nii ko sëriñ bi andee ak nii mu ko toftalee ba noppi xàmmeewut lim doon def xàmmeewu ca lan moo cay farata wala lan moo cay sunna boo ko laajee xamu ci dara mu ne am na ay borom xam-xam yoo xam ne atte bi ñu ko jox ci wàllu fiq mooy dañ dañ ne kooka daal sangu na rek waaye nag moom euh, mbooleem ay farataam ak mbooleem maanaam mbooleem la taxoon muy sangu bu bu doon janaba la janaba jaa nga ca moom ba noppi la waral janaba ñu nekk ci moom mooy lam doon def da caa xamul dara ca mu kàllaf mu nekk balaa def dara da caa war a xam lan lay def ni nga ko da nga ko gis ci Jawhar Nafis da nga ko gis ci yeneen i xam ne day soññe ci wàllu googu waaw euh, wa an taqulu alallaahi ma la taalamuun euh, yàlla yit kenn du wax ci moom loo xam ne xamoo ko kon rawatina di def ci moom loo xam ne da def xamoo ci dara moo tax mu ne borom xam-xam daan daa ci teg ne kooku de ba talaat yàqu na salaatu xoo julleem nga it laa tax bal defu ko nangu ba li fi nekkee xoo moom yafxalu mi ngi jëf fil jamihi ci mboolem yooyu ci mboole seen yafxalu mi ngi def isman bàkkaar fil jamihi ci mboole seen mu ne kooku it euh, noonu ñu waxee ne tojam ma des na ci moom borom xam-xam yi ne ne bu ci julli woon it julleem nga kenn du ko nangu yàlla suñu borom du ko accepté ndax loolu muy def bakkaaru kese la bakkaaru kese rek la doon la doon def ndax da def loo xam ne xamu ci dara xamul lu ca lislaam atte xamul lu ca sariha wax euh, kon foofu la ñuy haasa mawqifuna fii mooy suñu taxawukaay kon incha allah ba yeneen yoon di ñëw ñoo ngi sant ak gërëm mboolem ñi bàyyi xel eh, durus yëpp wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ba beneen yoon waj'al binaa'iya binaa'a ilmi wa amalin bi sunnatin wa hilmi waj'alhu maskana khurujin min dulam للنور واكف عنه كل من ظلم